partenaires yoo xamante ne gëm nañu projet bi gëm nañu état du Sénégal parce que état du Sénégal am na crédibilité auprès de ses partenaires de développement et ñaan yàlla lépp loo xamante en tout cas moom lañ ci bëggoon ci projet bi ñu gis ko mu ànd. man dama bokkoon ci ñi nga xam ne en 2009 biñ ma installé bi ñu ma toogee parce que xam nga euh, tour touru projet la ci am solo surtout mooy le contenu du projet te man li nga xam ne moom laa gis ci contenu projet bi. C'était c'est un projet d'assainissement liquide alors nous, au niveau de la mairie de d'abord nous ngi liggéey di jéem a xool def études pour ñu mën ñu des recommandations Il solution a une solution, am d'abord Ben, mais beneen bi gis ngeen partenaires yi ñëw tey dëkk bu mel la Chine ñëw na manifesté wu dugg ci projet bi Chine tey dañu ñëw rek ne dañu intéressé ambassadeur Belgique gis ngeen ko invité nañ ko mom aussi dafa ñëw intéressé c'est pour vous dire que c'est un projet bo xamantene képp ko xamantene yaangi yaa état du Sénégal yaangi ngi du xol yow ci projet bi ban côté nga ci jël parce que projet bu yaatu la en 2009 le projet était à 33 milliards tay projet bi mi ngi ci plus de 92 xawma 93 milliards té d'ici que projet bi jeex mëna dem peut-être même boromba mëna né 150 milliards c'est pour vous dire que luy dox la luy magal la ñëpp xaj nañ ci